xamul juddam xamoo cosaanam bàyyi ko mu dem yàlla ndogalam toobal sa wéy alors comme ni ko faral n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent maanaam da ngeen am accès a jot yeneen vidéo xam ne moom la ñuy dugal ci suñu chaîne YouTube bref gars yi tey nag dama na ci biir hip hop galsen bi premier bi nag mooy bu Azza bi moom génne na benn projet ak ki ni moo di Dizzy génne na aussi benn son intitulé looloy zé looloy bandi mais avant ñu wax ci Dizzy Kha bi dañuy dégg wax ci bu Azza Best alors ASABES génne na benn projet le 15 novembre 2019 bii nii projet bi mu Million Flow Million Flow nag nekk projet boo xamante ne nii comporté na 15 titres gis nañ ci featuring ak Dip Doundou Guiss et à pour Logal gis nañ ci aussi featuring ak Is 812 et à pour titre FD FD ak ki nga xamante ne tamit moo nekk Samba Peuzzi bi nekk Follow gis nañ ne nag projet boobu noonu waa Reptile Music ñoo ko produire buñ projet bi nag gars am na ci li nga xam ne nii mooy clip clip bi nga xam ne moom la def ak Dip Doundou Guiss nekk son bi nga xam ne moo nekk Rogal clip boobu nag moom la ci njëkk a génnee c'est eh, disponible sur sa chaîne YouTube parce que daa bëgg wane gars yi daal que ni moom am na talent day day job day teg empreinte ci biir bi alors sama gars projet ASABC bi nag benn rek la ci clip muy ndogal bi nga xam ne mën a am featuring ak Djim 2010 boo leen xoolee boobu la ci njëkk a publier sur sa chaîne YouTube juste pour woon gars yi rek ni moom am na talent parce que du ñu gis ay tragam muy ngi circuler ci internet bi mooy mais on savait pas ce qui était derrière ces tracts xamuñu woon xamuñu woon ni ASABC amee na ni talent am na talent te mu ngi def pas teg empreinte ci biir game bi. si biir sama dogal bi nag bu ñu xoolee mu ci wax diggante nit ak boroomam pour gars yi dina ko dogal quoi doon mbir bu simple te neex boo xoolee moo tee nga fin bi après ci la dib ñëw tegu ci tegu tegu ci bit bi mu nekk lu nice quoi donc sama gars yi daw leen gaaw ngeen déglu ci son yëpp li nga xamante ni moom la génnee ci projet boobu noonu genre projet bi mooy son yi nga xamante ni da nga koy déglu te doo sonn ñoo koy débuté doo sonn daw leen ngeen def si les sons sont disponibles en plus clip bi génn na mu ngi ci chaîne YouTube am daw leen gaaw ngeen seetaan ko AZBES félicitations à toi alors gars après AZBES nag dañuy wax ci Daisy Ha nekk Reptile Music alors moom tamit génnee na benn son qui a pour zee looloy bandi Lolo Ibani. But au Manan Kani. Sama gën lu tekki la may conseillé. Waxo sa bopp, sama bëggul yow la concerné. Waxo sa bopp. Tango la lokolo. Tango la lokolo. Tango la lokolo. Tango la lokolo. Tayel sa voudé pour uti koppa dak bénéfice mooy sama sport du jour nañu da nga album ñu di ko nga gene ay day ni ku toog di. alors ci biir son bi nag Désiré gis nañ ci def ci clash cinq autres rappeurs cinq moroomu rappeurs la ci biir son bi avant ñuy gis ni clash bi commencé na Désiré wax na si soo ma gënul tekki loo may conseillé mën nañ koo xoolee comme genre ku ko gënul tekki ku ko gënul aay ci biir hip hop Galsen bi ku ko gënul teg tàmm ci biir game bi koy joxee idée alors sama gars yi son bi di daw ba à la quatrième seconde nag mu classé ki nga xam ne moo di One Lyrical ne ko nga ne da ngay génnee album di ko xaar da génnee ay daj loolu la clash ki nga xamante ne ni moo di One Lyrical à la quarante septième seconde mu clash Paco Prise ni ko boo dee daan rab fekk fi Thierno Moulé mayonnaise bi doog na ndigal lii la clash Paco Prise King Lebu clash bu nekk tamit clash boo xamante ni ñëpp ngi ciy wax ni sur les réseaux sociaux yooyu ñëpp ngi wax naan clash yu di si di si xaar yi nga xam ne clash la ko clash la ko rappeur yi bon lu nekk loo xamante ni moom lañ soxla ci génn parce que clash boobu ñàkk. alors à la cinquante septième seconde mu clash ci Taiji Singh alias Mr Olip Singh di ko jàpp sa projet cere pour yow Chine nga nekk sa añ bu tegul bu koy jëj sa mère loolu la clash Taiji Singh alias Mr Olip Singh. alors gars yi son bi am une minute quarante secondes mu clash nag ki nga xam ne moo ci Kao Pépite ni ko yàgg dugal maag yow fi nga génnee peut-être naa am may sa père foog ni ko yooyu mu biir Pikine loolu la clash ki nga xam ne moo ci Kao Pépite mu nekk clash boo xam ni tàng na jël lii si xaar sax moom personnellement moom dafa tàng parce que génnee son yow waxoo ci genre leneen nga clash ay rappeurs dafa tàng trop sax. et enfin gants yi am une minute cinquante deux mu clash jaay la banks mu nekk aussi clash boo xam ni dal la te ñëpp ngi ciy wax alors gars yi ban clash moo leen si gën a neex en plus yéen nga xamante ni yéen a di xaar clash lan ngeen di xaar pour répondre ko clash buñ la clashé da ngay tontu bul xaar war a répondre ah man moom ci ma yaakaar lan ngeen di xaar pour répondre bi sax gaaw leen ngeen tontu ko game bi jax game bi gën a am doole ñun loolu la ñu soxla. ci congé a best ak ki nga xamante ne ni euh, moo di Dizzy Kha son bi nga xamante ni moom la génne je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne YouTube Gamza TV n'oubliez pas la chaîne et d'activer surtout la ko xamul juddam xamoo cosaanam bàyyi ko mu dem yàlla ndogalam toobal sa wéy